jaa jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias mbokk yi teewlu xibaaru marax yi ponk ci gën a ñetti fan gannaaw bu mu ablé ca Gambie njiitu réew ma woon di Yaya Jammeh force CEDEAO yi ñu ngay wéy di am ak taxawaay ca Banjul rawatina ak li ñu naan point stratégique yi ba ci State House di palais présidentiel ba ñoom force CEDEAO yooyu lëkkaloo ci ak l'armée bu Gambie général Mansour Seck nekkoon euh, ki toogal Sénégal fële ca États-Unis euh, di ndaw la am na ay kàddu yu mu yëkkati. wax nag ci wàlluk intervention diplomatique bi ñuy rafetlu waaye jàpp na ni euh, intervention militaire buñ ko amaloon nit euh, ca Banjul moo doonoon lu gën tey tamit lañ cay ñàkk du bari lool nee na nag lu jëm euh, ci jógeek Yaya Jammeh fële ca Banjul du def rek lu dul yombal jàmm ñu ñu bëgg ca Casamance machine boobee nga xamante ne nag moom moo paan ca hôpital Aristide Le Dantec ñu koy wax jamono ji yëpp muy radiothérapie bi mbootaay gi xeex jàngoro yi cancer ween ci Sénégal di naqarlu ni yenn réew yi taxawee réew yi dend ak Sénégal Sénégal ndax tey jii aji tawat gi ci wàllu cancer bu ñu fa demee la ñuy fay ci koppar bari na ëpp na million ak genn wàll jëruñ di dénk wàllu wér gi yaram ne mi ngi ci def fi jéego ci wàllu woowee waaye am na lu bari lu ko gàllankoor tere gi jëm euh, ci bépp réunion boo xamante ni jege ñaale xalifa Sall danañ ko amal ca màkkanu parti socialiste loolee ndax euh, dana yegg lu ci mën a doon union départementale bu ndakaaru ne mu neex mu naqari dinañ amal seen euh, réunion ci siège bu parti socialiste yi am CAN 2017 Sénégal wéy di doon premier ci poule ba mu bokk ndax amagul benn yoon boo xamante ne nii nërmelu na ko sunu gaynde ñetti jongante def nañu ko fi ne nag la ñuy yóotu rek mooy final ba ñu yegg ca maître Augustin Senghor ak membre yu fédération ñi ngi doon amal ab nemmiku ca maison de la presse ba nekk ca Gabon sunu gaynde nag jot nañu seen i prime prime yooye jëm ba ci qualification quart de finale bi ñaari téeméeri million la ak juróom-benn mbokki ponk yaa ngi ni yaatal Ah, jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Future Média niñ ko waxee ci ponk xibaar yi ñetti fan gannaaw ba mu ablé réewum Gambie di euh, jàmmee force CEDEAO yi ba nëg ni nag ña nga amuk tànk fa fee ca Banjul rawati nag fa ñu naan State House di palais présidentiel ba ñoom nag force CEDEAO yooyu ñu ngi ci lëkkaloo ak l'armée euh, bu Gambie suñuy naataango euh, Barka Ba moo xarma ña nga ca Banjul dawalkatu oto yu faral di jaar ci yoonu bànjul bii di dem ca pale présidentiel ba dafa mel ni ay gént ci ñoom waaye de loolu moo am ay soldaaru CEDEAO léegi ñoo taxaw ci baaraas yi ngir saytu kuy dugg ak génn ñu ràññee ci commando sénégalais yu baawee ko sa Ziguinchor bokk ci ñu njëkk dugg ci capital bi jaaree ko Séléti taxawaayu adjudant Diallo ak i ñoñam di lu dalal xelu nit ñi. parce que Sénégal ak Gambie benn la waaw loolu daal laa am pour wax. jërëjëf jërëjëf waxal Sénégalais yëpp jërëjëf. sant nañ leen sant nañ leen. bu leen def voilà. liggéey bi set na liggéey mm. ñu ngi yu mm. mm. bi ñu xam fan ginnaaw ba ñu duggee Gambie force CEDEAO yi ñoo ngi taxaw temm ci bërëb yu am solo yépp ba ca gën a fës di State House di palais présidentiel bu newoon makkaanu nguuru président Yaya Jammeh soldats yi lëkkaloo ak seeni naataangoo gambie bu baax lu koy firndeel di général Ousmane Badji chef d'état-major bu armée Gambie. waaye pol yi dawul de. déedéet. pol yi. pol Fuuta yi ñoo daw waaye pol Yembere dawul. <laughs> ba mu nangoo kilifteef président adamu Barrow ba léegi Gambien yi dañoo sopp ci seen xol ki ñu duppee CDS. makkan bi di State House nga xam ne moo doon nguur nguuru yaa Jammeh léegi ay commando sénégalais ñoo koy garde te ñu ngi xaar ki ko naru wutu fii di président Adama Barrow Barka Ba directeur de l'information bu télévision Futur Média di ko jaajëfal moom sax la ñuy desal euh, Barka Ba Barka maa ngi lay nuyu. Barka gis nañu ci reportage bi léegi reetaan yi foofu mu mel ni bu fitna amee woon tamit maanaam euh, jeexi jaaxa bu amoon askan wa tey seen xel dal na waaye du tax nag ñu tëj page Gambie ndax ba nëgë xëy na am na yu yees yoo xamante ne nii euh, dafay faral di ñëwaat lan lañ mën a jàpp foofu ñetti fan ñu ko waxee rek gannaaw ba yaay jàmmee jóge ca Banjul la waaw gannaaw ba Yaya Jammeh jógee ci nguur gi nit ñi ñi ngi mel ni daal léegi lañ gën a mën a nokki bu baax gën a mën a euh, ree ak kaf ak euh, yu mel noonu dafa mel ni daal ñu nekkoon ci prison bu mu rek ñu mel ni dañ leen dañ leen euh, génnee ci naxa bu bu metti leneen liñ ci mën na rek mooy que réglage yi nga xam ne nguur gi gees bu bu yees bi ñuy xaar ñu nekk di ko di ko def am na ci ay rëq-rëq yu ndaw tey xalifa euh, Sall ci ngoon di porte parole lu président paro mhm. indi na ay leeral ci ay polémiques yi commencé woon am surtout ci tabb bu ñu tabb soxna fi ñuy duppee Fatoumata Diallo Tamba Dieng ñu nommé woon ko fi vice présidente euh, nee na loolu indi na ay coow ndaxte euh, surtout ñu nekk ci diaspora bi nekk ci internet ak ci sax ci biir Banjul am na ñu seetlu ne ndaw si warul mun occupé poste bi su fekkee tënkuwu nañ ci charte réew mi constitution bi ndaxte constitution bi dafa ne pour nga nekk vice président hmm. da nga war a am fanweeri at ak juróom dem ba euh, juróom benn fukki at ak juróom ci diggante boobu rek nga ko mën nekk am na nag ñoo xam ne dañu jàppale euh, euh, soxna soosu Fatou Diallo Tamba Diagne ëppal na at euh, pour mën a nekk poste vice présidente bi nee na ñoom loolu waa coalition bi dañ ko xool ndax mënaguñ cee àdduna du ko nekkaat wala du ko nekk mais na nee na ñoom ci constitution bi la ñuy tënku te nee na président Baro wax na lépp li nga xam ne ñoom doon ñu ko woon nangu te bañaloon ko yaayaa jàmme lu mel ni kay affaire u jalgati ñoom ñaanu ñu commencé seen nguur ci jalgati ay ay constitution. danañ mm-hmm. loolu duñ ko def te tamit ñu ngi leeral ne compte Twitter bi ñu bindoon ne président Adama Barrow moom moo ci annoncé woon ne mu ngi ñëw nee nañ boobu du compte am officiel joxe nañ beneen compte ñu ne boobu rek moom moo wër boo xam ne mën nañ su ci Adama Barrow bindee euh, ñu jàpp ne lépp lu wax ci moom la jógee. Barka. waaw laata ñuy tàggatoo kon euh, ni nga ko waxee léegi fi nga jeexalee euh, am na compte bu doon wax ni euh, président Barrow war na dellu foofee ca Banjul yow xibaar yi nga mujjee jot foofu maanaam mënaguñoo jàpp daal ñëwam ca Banjul jamono ji waaw fi mu toll nii moom fii nii kenn ci ñoom nanguwul àddu xalifa Sall moom nee na xam na kañ la à peu près président bi war a ñëw mais munu mënu ko wax xam naa nag ñu ci bëri ay problème mu kaaraange ak yeneen moo tax la ñuy sóoraale mais koo laaj ci ñoom du la nangoo wax exactement kan la président Baro di ñëw lu am ba des daal mooy ñu ñu ngi koy xaar te pale ba bu mu war a jël bi foofu force CEDEAO yi ni ñu ko wanee sànq ñëw nañ euh, assuré fa kaaraange bu mat sëkk ci ci Banjul ñëpp a ngi dox seen soxla di xaar kañ président bu bees bi di ñëw. ñu di ko jaajëfal bu baax Barka Ba directeur de l'information bu télévision Futurs Médias ci Gambie la ñuy des di wax ak solution diplomatique bi ñu ci nemmeeku boobu ba tey kii nag général Mansour Seck la moom rafetlu na lu nu mel naam waaye ci gis-gisam intervention militaire tamit euh, doon na am solo ndax ci gis-gisam moo nekkoon li gën ndax lañu ñu cay ñàkk bu boobaa du bari moom mi nga xamante ne nekkoon na ndaw lu toogal Sénégal jógeek Yaya Jammeh ca Banjul loolee mën naa doon ndoxteel li tax ñuy am jàmm ca diwaanu euh, Casamance mu daal di am entretien exclusif boo xamante ne ni euh, jox na ko entretien exclusif pardon boo xamante ne jox na ko suñu naataango Adiatala Yunus Diatta naam Yaya Jammeh dem na si jàmm te baltakul wante ci xalaatu général Mansour Seck opération militaire lu waroon a jiitu la. bi nga xam def nañu lu ñu mës a am yëpp mën a am yëpp ci diplomatie ba mu jeex. ñu décidé na léegi e et euh, CEDEAO ñëw na dugg na ci Gambie bu ñu ko bàyyi woon mu continuer bon dinañ gagné au moins vingt quatre heures parce que bu ñu ko ñëwoon wóor ko wala occuper State House ak Kaninaay bon amul benn choix ba dina wóor na ci boos du jox benn condition di laaj ay décision wala jël xaalis di sàcc xaalis loolu yëpp du ko def bu ñu ko woon na ñu def la xanaa mu bëgg a xaaroo mais loolu wóorul noonu naka def ba Ndar dina gën a yomb. wër ngànnaay ci biir Gàmbi lu war la ci kaddu kii di général Mansour Seck. jàmmee boo gisee résistance mu def yëpp kenn xamul lan dafa fa bàyyi wala yooyu bon nag euh, affaire yi sécurité baro bu laata dem foofu war nañ ko dimbali euh, pour mu am sécurité wóor ne amul parce que moom amatul arme amul arme te kenn xamul police ak ama lu ñu def. ki fi nekkoon ambassadeur Sénégal ci États-Unis mu ngi digal njiitu réew Sénégal ak réewu Gàmbi. ñu càmbaraat diggante ñaari réew yi bu baax. ñëpp ngi wax sa affaire yi ñëwaat def euh, Sénégambie mais ak condition ko ñaari dëkk yi ah suñu ñaari li ñu doon mbokk yëpp ñu bëgg ko ñoom te ñu ba a wax na Dakar euh, Sénégal dafay dominer Gambie wala yooyu def nañu échec ci 1980 yu mel noonu ñu def yëpp nañ jël échec yooyu yëpp nañ jël lan lañ ci war a jàng de façon bu ñu ko commencé mu doon lu wóor ne xam na ay mbokk lañu ñun ñëpp am nañ ci bénéfice. xamal na ni tamit demum Yaya Jammeh dina jur saafara ci crise casamançaise. bu ñu defoon pont bi d'abord Gambien yi ñoo ci bénéficier parce que seen dëkk ni mu mel onze mille kilomètres diggante moitié bi nekk ci kaw ak bi nekk ci suuf yëpp dañuy séparé bu ñu defoon nag bi ñoom ñoo ciy bénéficier d'abord mais évidemment sénégalais yi aussi parce que li ñuy wax enclavement Casamance muy jox doole tuuti MFDC yeeg wala yooyu bu ñuy defoon pont boobu loolu dina gën a yomb na gën a yomb désenclavement bi waa ji buggul woon ñu def ko parce que même bu ñu defee première pierre bi sax ah buggul woon pour ñu def c'était évident. général Mansour Seck yokk na ci di ñaawlu rek càcc bi am ci biir palais présidentiel gambien te ñu ne ay militaires ñoo ko amal donte kii di Yaya Jammeh moo ko jiite wante du luy rafetal deru militaires yi. Hadia Talla ñu di ko jaajëfal li jëm ci tere gi nga xamante ni nii jege ñaari Xalifa Sall euh, war nañu ko sàmmanteel muy bañ a amal benn euh, ndaje ci màkkaanu parti socialiste loolee ndax luy wéy la union départementale bu Ndakaaru ne mu neex mu naqari dinañ amalaab ndaje alxemes ji lañu ko jàpp ca parti socialiste di màkkaan wa moom secrétaire général bu convergence socialiste daal di àddu ci li ni mel ne nag seen matuwaay yëpp daanu ko jël ngir ndaje moomee bay secretaire général bu convergence socialiste Pafara ñi ngi moo taataan ay kàddu ñaaw teef la te ñi ko def xam nañu leen bu baax waaye mënuñu tëral mënuñu tax ñu dellu ginnaaw ndax plus ñuy avancer dégg ngeen socialiste yëpp a ngi wax man mii wër dëkk bi xam naa ne socialiste xam nañ li xam nañ ni ñu taxawee xam nañ li ñu bëgg te incha allah fi ñu jëm ragaluñ ko ñu ngi siy dox nànk-nànk te bu neex leen mu naqari leen incha allah alxames ñu réunir biir maison Léopold Sédar Senghor ndax foofu kenn moomu ko. li ñu wër ba wër mooy daañu indaale suuf ak ndox comme d'habitude comme ñoom loolu la ñu ragal boo indee suuf ak ndox rek ñu ne da di jéem a rey daañu indaale suuf ak ndox te incha leen mu naqari leen daañu fa réunir kenn mënuñu tey suñu la sunu kër baay la ñun fa lañ juddoo fa lañ màggee sunu ay waajur fa lañ milité bokk ñu ak ñi nga xamante ne dañ jékki-jékki rek kenn xamul fu ñu jógee bëgg a yàq le sunu moomeel mais duñ ko yàq allah daañu fa nekk jeudi incha allah Euh, jumtukaayu radiothérapie boobee nga xamante ni dafa paan fële ci hôpital Aristide Le Dantec mi ngi wéy euh, di jur coow mbootaay nga xamante ne nag moom moo euh, ëmb ñi xeex jàngoro cancer ween ci senegal di ko naqarlu la leen gën a métti nag mooy tey jii réew yi nga xamante ne dañu dend ak Sénégal te ñu bari caa ji tawat gi ci wàllu cancer di fa wutali lañ leen di fayeku ci xaalis bari na lool ndax ëpp na benn million loolu tax na ba maam teewlu ay kàddu ma ak Aminata Mbaye Sow machine bi ba mu fi nekkee Sénégal daf si doxaloon yërmande gu yaatu ndax sénégalais loolu la xam ndax fanweeri junni la ñëpp daan fay mu nekk ku nekk euh, ku dëkk Mali wala ku dëkk Mauritanie wala ku dëkk Côte d'Ivoire wala ku dëkk fépp boo ñëwaan fii fanweeri junni nga daan fay pour bu def sa sa vingt cinq séances radiothérapie kon nag tey. yaakaar naa ne euh, xaw nañu ñaaw lu tuuti le fait que Mauritanie di ñu facturer un million quatre Mali ñi ngi woon ci ñeent fukki junni léegi ba ñu yëgee ne machine Sénégal bi yàqu na ñu yokk seeni ñu yokk seeni prix te li gën a li raw dolli dégg naa ñu ne. Euh, bu dee ween dafa am looy fay bu dee cancer u kol am nga looy fay bu dee cancer u euh, gorge cancer bu nekk am na looy fay loolu vraiment ñaawlu nañ ko ñu di leen lancer ñoom itam appel ñun ñëpp ay dëkk jullit lañu kon nag war nañu mën jàppale askan wi. fondation yi nekk ci Sénégal yëpp maa ngi leen di ñaan ak société yu mag yi fi nekk ak ñi nga xam ne bàyyi defal yàlla lañu te ñu ngi dimbali euh, askan wi te yàlla tax ñu ñëw jàppale ministère de la santé ndax lii yëfi askan wi yëpp la pour ñu jàppale ministère de la santé pour ñu mën a yóbbu le maximum de personne pour ñu dem faji leen pour ñu dem defi seen radiothérapie bitim réew. docteur Marika Cissé moom mooy njiital kuréel gi nga xamante ne nii euh, moom mooy xeex euh, jàngoor yi dul wàlleet manqaaso euh, ci njëriñ ji dénk wàllu wér yaram nee na nag lu ci maanaam machine boobee di radiothérapie bi ñi ngi ci def ay jéego te jàpp nañ ne sax machine boobee màggat na nangu nañu ko waaye nag nañ jàpp ni tam ñu daal di sàmmonteek yenn bu ñu bëggee matale lu ni tey ji am na ay jéego naam waaye am na ay facteurs yoo xamante wér yaram kon mënu koo maîtriser lu ca mel ne wàllu transport bi ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne faaw ñu taxaw ci docteur yi Cissé ñu lu ko ak Aïssatou Paye damay fàttali rek ne appareil bi moom yàgg nañ xam ne que normalement 2017 war nañ ko seetaat ndax 2012 luñ ko lu ñu sa amoon luñ ci changé te loolu juróomi at la waroon a am muy 2017. ñun nag xëj na euh, dafa antuwul rek waaye ñun suñu yaakaar fii ci ministère de la santé moo doon. comme xam nañu 2017 il faut ñu seet dara ci appareil bi et que même bu dee appareil bi mi ngi dox dinañ ko arrêté pour seetaat ko ak dinañ ko arrêté pour indiwaat leneen xit na pour indiwaat lu bees loo xam ne méngoowul ak bi fi nekk jamono ji maanaam ci installation bi duñ ne woon ñu table woon fii yéene bi ñu amoon moo di balaa appareil boobu lay di soox dalal jàmm commencé ndax dalal jàmm moom service radiothérapie bu bees tax moo fa am bu nga xam ne boobu waa ñaari appareil yi def radiothérapie moo fay am te ñàkk am loolu du question xaalis xaalis jënd nañu du question mu egsi du question wu installation yooyu yëpp yi war a Sénégal war a def yëpp am na ba pare xet na léegi ay procédure transport rek ay procédure ay ay ay livraison yu yéex mooy te loolu ba suñu coobare li ci gën a am solo moo di ñi nga xam ne dañu soxla radiothérapie nuñ leen di def te loolu nag état bi jug na ci décision nañu que ñi nga xam ne bii soxla nañ radiothérapie ba nga xam ne bii seen ay euh, duñ leen war a euh, faj état bi jël na matukaay pour yóbbu leen ci beneen dëkk mun na nekk Mauritanie ndax dégg naa dina ñu ngi koy wax ci rajo yi mun na nekk Maroc yooyu yëpp ay procédure la yoo xam ne ñu ngi ciy liggéey te nag yóbbu bi dootuma teew rek man daa ne malade diw moo ma neex wala sama mbokk la mooy dem duñ koy teg ci yoon ñu wax leneen ci xibaar yi ba tey ay femme Joola bu ñu ko dégg nag ak mbootaay la bu euh, boole euh, soxnay diaspora yi fekk baax fële ca diwaanu euh, Casamance ñoom amal nañu ab karawaan karawaan ba nag Paris la Dakar Thiès jàpp Sikicoor lañ ca jublu rek moom mooy weccoo xalaat ci wàllug caada li ñu cay jëlee nag di koppar dinañ ko jagleel rek xeex ba xale yu jigéen ñi des ci lekkool yi waaye tamit defar ay wanak ci biir daara yi loolee mooy seen bëgg-bëgg ñu Diakhaba moom bokk na euh, ci mbootaay googee ci micro Ibou Diouf. association Batiyaay jigéen ñoo xamante dañu nekk Europe ñoo jàppal école yi nga xamante ne ñoo nekk Casamance biir loolu dañu organiser benn caravane lépp luñ si mun a am dañ koy invertir Casamance si école yi pour tabax ay latrine jàppale xale jigéen ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk parce ñoom dañoo teel jàng ñoom ñu nekk Europe loolu moo leen daloon ba ñoom ñu teel a bàyyi jàng bëgguñu nag seeni doom ak seeni sët ak seeni jarbaat loolu dal leen loolu moo tax ñoom ñu jóg pour def caravane bi tàggat yaram ñu waxaa ci coupe na coupe d'Afrique des nations ci wàllu football ba ñu amal fële euh, ca Gabon euh, sunu gaynde nag ni ñu ko xame rek euh, boobu ba nëga ni ni ñuy taxawee ci wàllu match yi nga xamante ne jot nañu ko jongante maître Augustin Senghor ak ñenn ci fédération sénégalaise de football dem nañu nemmiku maison de la presse ba ngir def ab taxaw seetlu waaye tamit ak xayma ci sunu gaynde yi ba nëga ni nu ñu taxawee ñu jàpp nag ñu ngi def ay jéego ci wàllug wér yaram ba sax ci seen wàllug ndaje yi nga xamante war nañ ko amalaat ci ay bi si ñu dëkkmal àddu nañu ci Mame Fatou Ndoye Hamza Diallo. ab délégation bu takku la Augustin Senghor àndal ci ñëw seet si taskatu xibaaru Sénégal yi dëkk fii ci Franceville ci benn hôtel de la place. président fédération sénégalaise bu football profité ci occasion bi ngir sargal liggéey bi presse sénégalaise di def ci football ak équipe nationale. on une presse boo xam ne am na ñu presse boo xam ne mën nañ ko wax euh, musuñu laam-laame ci lenn mooy intérêt euh, national bi euh, nekkuñu fi pour par parloo nekkuñu fi aussi pour wax nit yi lu leen neex donc am na fu ñu toll baax na ñu seedeel leen ko. ci délégation bi bokk na ci Abdourahmane Fédior mi di médecin équipe nationale bu Sénégal. mu ñuy wax ci solos récupération wu joueurs yi ci dëkk bu tàng te humide bu mel ni Franceville. waaw par rapport ak tàngaay bi lépp li ma ci mën di wax ko mooy que ne Gabon dafa tàng temps yi dafa tàng dafa luur c'est-à-dire euh, da ngay ñax lu bari même booy dox sax da ñax ah estomac booy nekkee ci terrain bi di daw donc euh, côté boobu il faut que joueurs yi expliquer nañ leen ko ah lenn rek la ñu war a mën a def mooy naan. naan lu bari ah naan lu bari que ça soit aux entraînements que même bu ñu entraîné wul sax il faut que ñuy naan hmm, pour compenser ñaqaay bi. et puis am na yeneen complément aussi yu ñu leen di jox ah que ay boissons yoo xam ne dañ ci dolli yeneen yoo nga xam ne mënuñ ko fekk ci ndox mi ñu leen di jox. donc dañ leen koy jox pour que ñu mën euh, récupérer. ci waxtaan bi président Augustin Senghor xam le ni Sénégal day xoolaat ay ambition à la hausse gannaaw qualification ci premier tour bi léegi objectif bi mooy dem ba final mais ci kaw joueurs yi garde seen humilité waaye xamit seen doole. pare nañu match de groupe yi ñu ngi dem ci quart de finale demi finale ak finale nu ñuy def ak fédération lan la séntu ak euh, autorité bi nga xam ne mooy ministre de tutelle pour euh, équipe bi mën a egg ci cëppaandoo gi gi du rek. sax egg final mais si suñu gis-gis mooy jéem a jël coupe bi parce que tey mën nañ jàpp ne sénégalais ci football sénégalais ci fànn yëpp am nit yi nangul nañ leen ne football bu mag lañu. waaye saa ñu tuddee li jëm ci euh, raaya maanaam ci trophée ñun ñëpp dañuy xaw a sëgg parce que diiru euh, juróom benn fukki at Sénégal ba léegi mënul yëkkati euh, ndam li trophée pour wax waaw góor donc loolu mooy li ñu ñor ñu ñaan yàlla mu mim dara teewul mu nekk ci ren ji. Euh, bu ko deful ñu xam ne euh, tamit sorewul parce que defe naa liggéey nañu ay dem nañu ak def nañu ay jéego yoo xam ne Sénégal mën nañu xam ne tey euh, ndam li soreetul. visite de courtoisie bi nag am ci ambiance bu neex mu mel ni victoire gaynde yi seral na xol yi yokk sérénité ci rapport yi. Mame Fatou Mbissandoo ñu leen di euh, jaajëfal lu aju sax euh, ci euh, primu sunu gaynde yi maanaam qualification bi ci ndoxteel li ba ci quart de finale bi jot nañu ko toll na ci ñaari téeméeri million ak juróom-benn yoo xamante ni débloqué nañu ko ngir sunu gaynde yooyu lu aju ci loolu ba tey la ñuy des niñ ko waxee Sénégal ñetti yoon mu jongante ko ci pulam lajju ci benn yoon bilang bi jàpp nañu ne baax na naam waaye lan mooy chance su Sénégal ci li ko dese ci ay jongante Mamadou Kassé taskatu xabaar la wax na ci ak Ibou Diouf ñu teewlu reportage bi. ci coupe d'Afrique des nations bi entraîneur Aliou Cissé ak équipe am jiitu si groupe B bi loolee nag ubbil ko buntuy quart de finale yi Sénégal nax ñi nga xam ne ñoom la bokkaloon groupe boobee loolu tamit tax mu am juróom-ñaari poñ. yaakaar naa bilan bi vraiment jaar na yoon positif na ndax boo amee équipe boo xam ne euh, bi muy def préparation daanaka mun naa ne match yëpp la gagné. bi mu ñëwee ci compétition bi def na préparation bu baax am organisation bu baax voyager bu baax dem nekk ci ambiance bu baax ci atmosphère bu baax kooku yaakaar naa ne déjà lool rek mooy prérequis yi nga xam ne bu ko équipe amee rek war nañ mun am yaakaar ci moom. ci CAN 2017 bi xew Gabon bokk na ci li ci gën a fës dogal bi si sa jëloon rek gannaaw footballoo ñi nga xamante ne d'habitude ñoo doon toog ci banc bi. loolee xewoon ci digganteem ak Algérie. haute compétition dafa doon loo xam ne tournoi la tournoi nag match bu nekk ak réalité am te nag comme que Sénégal gagné na ñaari match am yu njëkk yi ba nga xam ne qualifié nañ jarul woon ñuy exposer suñu joueurs yi nga xam ne ci ñoom la ñu am yaakaar ci lañ gën a am yaakaar en tout cas. ci loolu coach Aliou Cissé jëlee ci ndam loolu may ko tamit mu nar a jànnook ak beneen équipe di Cameroun loolu sax ñu bëri gis ne. match bu nar a métti lay doon. équipe bu Sénégal bi moo gën a am tey confiance ci li muy def équipe bu Sénégal bi moo ëpp organisation en tout cas yooyu facteur dafa doon facteur yoo xam ne tey bu ko équipe amee nga janoog beneen équipe. mënuloo lu dul imposer sa identité ident sa imposer sa personnalité. équipe bu bi daal foog naa ne daal euh, euh, yaakaaruma ne daal euh, duñ duñu ci génn. yaakaar naa ne daal dinañ ci génn. ci xalaatu ñi seen xam-xam màcc jëm ci wàllu football Aliou Cissé ak staff technique bi xam nañ léegi lu ñu yor ci biir groupe bi looleen nag mën na leen may ñu am taxawaay bu mucc ayib seen diggante ak Cameroun loolu tamit di leen ubbi buntu demi-finale yi. Ibu Diouf cant ak gërëm ñeel na la yéen it sant nañu leen gërëm leen yen ñi farewoon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar bi mu sotti léegi léegi Sara Cissé dina fi teew faram fàcceel leen xibaar ci nasaraan jërë ngeen jëf.